ci nekk am na accès yoo xam ne kat way laago yi la moom daanaka solaire la wala ay produit yu am solo yu ñu fa daal di teg. ñu daal di koy xayma ci ñaar téeméeri euh, toilette publique yi nga xamante ne manqué wul dara ñu daal di koy jagleel ñi ko gën a itteewoo. fépp fu mu mbooloo di daje biir Dakar ñu góorgóorlu ba mu am foofu ay toilettes publiques toilettes publiques yooyu nag lu ñu bëgg mooy surtout pour première année yi mooy ñit bañ fa fay dara. toilettes yi bu ngeen ko gisee ngeen xam ni dina jàppalewaat nit ñi ci seen dundin bu sell. waaye dina xeex aussi li jëm ci wàll lu salte ak tilim. ñaari bloc ñu daal di koy xaaj ngir góor ñeeg jigéen ñi. mbégte rek parce que lii dafa amoon loo xam ne dafa bokkoon ci suñuy jàmbat bokkoon ci li nga xam ne nii vraiment moom jaaxaloon na naka la ñuy def ba am ko. parce que lii kontaan la te bu la du ko neexoon du ko def. booy da nga doon gis ñuy saw ci miiru stade beeg ci territoire beeg yooyu noonu. fi mu ne nii moom lépp jàmm na bile projet bi nga xamante ni nag ville de Dakar moo ko daal di door doon avancement bu am solo ndaxte dañuy bëgg ku nekk daal di wone lii di civisme. Tugal moo xam États-Unis moo xam Angleterre suñu mbokk yi dañ fay nekk ci mbedd yi di fa daan seen doole ci yar ak teggin ci jàmm ak salaam wante kenn ci ñoom xalaatul di am yenn jikko yi ci mbedd yi donc lu tax nit ñi su ñu demee ci dëkk yooyu ñu mën a am yenn euh, comportement yi wante su ñu nekkee seen dëkk. daanaka ñenn ñi dañuy jàppee seen dëkk ngeen jégal mu ci kàddu yi daanaka mel ni mbalit. askan wi nag ñu bari seen i njàqare moo doon naka la ñuy def ba daal di toppatoo itam daal di aar liñ leen fi defal mu mel ni nag farawu ville de Dakar waajaloon na lépp. bloc bu nekk mu am fa benn volontaire bu ville de Dakar buy euh, assurer sécurité bi. bu ci des tamit ville de Dakar dina liggéey ak benn société nga xam ne ni moom mooy toppatoo lépp luy doon entretien bi.